ñëw ci éligibilité am parce que boobu dañ koy teg exclusivement ci droit man droit rek laa jàng ba ci cycle doctoral euh, foofu droit kese laa lay jox après yow nga interpréter noo koy kiiwee mais avant ça euh, le ministre a fait léegi dafa xaw a defaat procès bi avec une série aussi d'incohérences yoo xamante ne foog ñu rectifier ko premier rapidement waaw non mënul ñàkk nag mënul ñàkk. parce que accusation yi quand même dafa lu. il nous minutes. voilà moo tax sànq ne ko on peut pas on peut beneen sax mais bii dafa am solo. parce que déjà dafa ne Ousmane Sonko dafa def poste weddi poste boobu amul loolu loolu capture bu ñu fabriqué la existé wul. loolu première chose la. informaticien ah dama dama dama dama ci xam lu leer. parce que yëpp boo xoolee. ñëpp 3 minutes lañ capturé. tout le monde rek même rek ma ñëw. Euh, Birame Souleye kii. Euh, Diomaye foog naa fii la woon ak euh, Maymouna. Mhm. bi muy wax boobu fekk na Sonko wax na ba pare ne dem na fa. d'accord Maître Tall bi muy waat boobu fekk na Sonko wax na ba pare ne dem na fa. donc kon ñooñu waxuñ ne mosu faa dem parce que boobu fekk na discours du Sonko précédé na leen ba pare mais une série d'illégalités la wax wax ay dem suite beauté pour un député ce n'est pas illégal ça. c'est illégal c'est pas dans le cadre de ses. il avait il avait une autorisation. c'est un fra non le cadre de ses missions c'est d'accord bu doon Bougaz bu doon Bougaz Bougazali bi mu ko defee dañ ne c'est illégal. Euh, on va pas refaire le procès parce que il faut que ñu am respect. waaw bu paree rek fa dellu dafa am ay accusations yu si nekk te fa. il nous reste et il nous reste 15 minutes. waaw il nous reste 15 minutes. Birame Souleye ak ak Maître Talla préciser. ils ont man bu ma ko daggee moom day daggee. Ah, waaw non non non non non ma doon wax du. non monsieur le ministre dina la may bu bu dagguloon vraiment. monsieur le ministre bu dagguloon vraiment voilà léegi léegi mu dem fa mu dem loolu amul benn infraction dem suite beauté génn heure bii loolu amul infraction. beneen bi bu doon bu doon bu doon am na infraction ñu daan ko si. amul infraction kenn toppee ko loolu même si moment boobu député la alors ñu topp ñu deux ans. di ñu sonal ak viol menace de mort ma topp leen deux ans di leen sonal ne leen amul yoon tey moom moo ne viole amul menace de mort amul dañoo disqualifier l'effet de viol acquitté de menace de mort kon ñaar yëpp benn infraction daanee wuñu ko Ousmane Sonko et c'est ça la réalité alors euh, Alhaji Assane wax na lu am solo muy un contumax qui fait des lives c'est inédit musul am ci àdduna contumax xam nga lan moo ko tax a jóg dëgg mooy ki nga xamante ne wër nañ la ba sonn musu mënuñ laa gis fenn. moom expliqué na ko mais déedéet ah, déedéet li mu expliqué dafa am lu des daa am lu des. waaw ah. mooy mooy euh, jugement par contumace jugement pour exiler la ñëwal. waay c'est-à-dire daanuñu la. pour pour pour pour tëj la. wala pour andi la yenn jafe-jafe parce que gisuñu la. Mm. pour ñëwal la. alors bu ñëwee lan moo ci am bu boobaa kon. c'est là où je reste ci droit et... pour répondre à Adja Astou que ni la candidature de Ousmane Sonko ba fii muy dem nii ñuy wax est intacte d'accord première chose mooy. il conserve ses droits. Euh, première chose mooy euh, le monsieur le ministre dafa ne bu ñëpp amoon le courage de Mambay dix plaintes pour diffamation dina daal ci kaw mën na nekk mën naa koo nangul mais aussi bu président Wade amoon même euh, intention que Mame Mbaye président Macky Sall du doon candidat parce que daf ne ko yaa tabax xërëm fii ci monument bu ko woowoon ne ko kaay wan ñu ne lii xërëm la du ko génne te boobaa président Macky Sall du bokk mu ne dans certaines conditions nañu dem déloger ji président Wade buñ ko condamné woon pour euh, appel à résurrection boobu du ci génn mu ni ñooñu dañuy wootee di taal ñooñu di woote di toj député moo taxaw assemblée nationale le député Cheikh Seck mu ne candidature bu jaree ñu dox ay cadavre dañ koy def ñëpp di ko dégg le maire Omar Ba moom moo taxaw mu ne bu président Macky Sall nekkul candidat ce pays sera en feu et en sang ñëpp a ngi koy dégg. Ahmed Suzanne Camara membre éminent de l'APR moom moo taxaw ne nañ jël bakkanu Ousmane Sonko ñëpp di ko dégg ñu gis ay nervi di dugg siège yu APR mais léegi nii xanaa kenn du ciy wax ci ay bu ñu dem ay parlement européen wala bu ñuy wax yeekatu fi na ñooñu ay nitu jàmm lañ. Mhm. mais quand même loolu noonu moo fi nekk ci réew mi pourquoi à chaque fois dénonciation bi war a benn sens parce que Pastef euh, siège am loolu acte de terrorisme la wala acte de la la la avant euh, deux mille dix neuf. avant présidentielle dañoo saccager comme il faut condamner kër ministre yeeg kër yeneen yeneen ay doomu Sénégal yu ñuy ñuy donc kon bu ñu dem rek di taxaw di def ay euh, speech ci ay Nations Unies ay parlement européen naan ñii ay terroristes lañ alors que actes yi ma la wax ñoo gën a grave fuuf di xewee ci ay hémicycle assemblée nationale. donc loolu tout le monde est clair là-dessus. maintenant par rapport moo tax ma ne la Ousmane Sonko tey jii nii la waraloon euh, directement décision bi génn na. publier nañ ko fépp dañ war a jëli ji Ousmane Sonko. mais mi bu ñu ko jëli jee mhm. parce que loolu noonu c'est la manifestation d'une force politique moom moo waral nga daan ko deux ans ferme bàyyi ko si kër góor yi muy lii may weyoo une rapport de force politique moom moo waral nga inculper nit pour viol une première fois de l'histoire judiciaire mu nekk sous contrôle judiciaire loolu Ousmane Sonko kese la amul mhm, keneen mhm. après une série d'agressions violentes ñu ne dañuy alors que APR bi nervi di dugg moom moo gënoon a jekk ci dissoudre une agression physique toj otoom loo xamante ni lu nekk mënoon na ko ci fekk une agression médiatique comme nii ñu koy defee ak ay journaux yoo xamante seen ligne éditoriale du dara lu dul jéem a yàq deram léegi nga ñëwaat ci contexte boobu noonu ñu daan la nag bu ñu dewoon jàpp ko dañ parce que loolu moom moo war dañ ko war a jàpp deux ans ferme lañ ko doon boo ko jàppee yoon dafa ne da bàyyi mu ñibbi. article 307 code de procédure pénale mu ni les contumax s'ils viennent à être arrêtés ou s'ils se constituent prisonniers nee na l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit. donc on reprend le procès. doucement est anéanti de plein droit rek la waxagum. d'accord nee na dañuy reprendre le procès sur les mêmes formes souligne-moi cette expression sur les mêmes formes. sur les mêmes formes d'accord. à moins que le contumax se déclare dans un délai de dix jours. ak acquiescer sa condamnation li ma la souligner la woon sànq moom mooy su les mêmes formes yan forme lañ jugé woon Ousmane Sonko. Hmm, il était en liberté. Hmm. donc da nga koy remettre en liberté en moo tax mu ne la bu ñu ma jàppee huit heures dañ may bàyyi dix heures peut-être que politique lay wax mais juridiquement cëslaay bi mu ngi noonu dañ koy jugé waat su les mêmes formes léegi looloo tax man dama jàpp ne Ousmane Sonko ñoom bu ñu ko jàppee c'est dans son intérêt parce que dañ koy jàpp bàyyiwaat ko.

scénario bu possible la. très possible. parce que moom boo déggee donc ba dernier dernier intervention. Euh, avant 124 bi. boo dégloo Ousmane Sonko en filigrane. di nga xam ne kii daa bëgg a demaat procès. parce que mi ngi nee naan bu ñu demaatee procès complot bi dina gën a leer. d'accord kon lan moo tax ñu yóbbuwaat procès